le phénomène de euh, Juan phénomène plutôt réfugié dans l'événementiel, mm-hmm. mais est ce que tu as la persistance de Juan Branco internationaliser combat sorte de peur au sein du pouvoir waaw déjà. c'est que c'est évident parce que avons une communication yi wax donc c'est-à-dire. Juan et bii euh, c'est une patate chaude. mais xam nga Juan Branco actuellement il est en train d'élargir son portefeuille clientèle. ok coow lu bëri lii muy def kenn bu amee problème euh, Gabon wala beneen dëkk wala beneen bu ñu ko hmm. owee mais xaalis hmm. rek lay am hmm. avocat boo gisee Alaaji Diouf nu mu tudd mu mel na xaw a mel xeetu comédien mais c'est l'avocat le plus courtisé nu mu au niveau de la scène euh, nu mu euh, de la magistrature parce que tout simplement autant on fait de bruit autant y a des possibilités ñeneen dégg la nu mu tudd ñeneen la mun solliciter loolu c' d'une part kon y a un côté financier mais beneen affaire bi mais il a assisté quand même son client monsieur hein? il a assisté son client oui mais comme tout autre avocat sur tous les plans non comme tout autre avocat c'est à dire que fi nekk nii ñi fi ñi fi fekk ñoom Siré ak mais ay Cheikh mais ñoo ngi liggéey liggéey bu rafet. Hmm. xam tout simplement parce que les nu mu tudd interface internationale la nekk mel na xam na CPI mu élargir ko mais xolal li ñi ci biir def. mom hmm. ñewul def lu ko weesu. Hmm. xam na li mu def rek moy il joue son rôle d'avocat xam nga te li mu xam état bi li mu xam moko ko ëpp fuufa fuuf te CPI jiitu ko fa Sénégal. jiitu fa nu mu tudd état bi motax fofu tamit aussi nañu xam ne c'est quelqu'un ko aussi mo ngi jouer ci registre bo xam ñun Sénégal war nañ ko baye xel. suñu derub dëkk tamit aussi nañ ko tamit. Hmm. fi ni diaboliser certes suñu dëkk problème y' a d'autres pays qui ont beaucoup plus de problèmes et qui sont en train de gérer xam États-Unis bi la première démocratie mais y' a des problèmes monstres président Nous ko nous diko wax def na fi nangam hmm. mais est ce que nous tudd dem na c'est-à-dire il faut que nous nous xamné Sénégal dëkk la problème mais c'est un problème gérable à hauteur de de la nation nous sommes autour d'une table. mais gérable gérable monsieur Si, nous ko peut-être na daal di ni le président Macky Sall dina dugal une machine boo xam itam opposant du fi amati euh, c'est le même régime qui va continuer euh, au-delà de 2024 donc euh, quand est-ce que suñu cour des comptes wala quand est-ce que nous wala mën a régler a des difficultés qui nous xam ni itam am waaw un problème je le dis très souvent nit ki bu amee gaañu gaañu ci tànk du faj mbaggam c'est que dire que Branco hmm. nous avons un problème au pied nous voulons soigner la tête. Hmm. fini nous avons un problème au Sénégal il faut rester au Sénégal pour la faire nous avons un problème au niveau juridique il faut rester au niveau juridique pour la régler c'est-à-dire que des fois dañuy jël un problème juridique bu un problème constitutionnel bu ko régler au niveau de la rue comme je dis son dafa euh, un un avantage moy il avait la rue publique. mais bataille am na ko ba tey mais stratégie ñoom li war a seen noppi noppi stratégie bi la xam nga souci lan hmm. dafa communiquer communiquer ba mujj ga nit ñi déglootuñ ko c'est-à-dire que la machine est en train de tourner à vide et conséquence mooy lii fi nekk ni nit ñi mënutuñu jóg jëm ci moom ngir lenn te beneen piège bi bi ñu leen teg mu gën a mag mooy le fait de dissoudre nu mu tudd parti bi fi hmm. nekk tey bu ma toogoon fii nu mu tudd je maa ngi fi au nom de de Pastef bu may laal bu may génn fii nu mu tudd dañ ma war a dem jàppi parce que existé kenn waratul communiquer sama piège boobu fi ne boo gisee ñoom ñu leen dàq ñu naan ñoom dañuy singale dara c'est parce que dañu leen def benn parti bi di leen déglu nag ku taxaw ne man maay nangam passif rek da nga dugg euh, nu mu tudd dans l'illégalité xam nga te loolu yëpp lii li ko waral mooy amuñu maturité politique et passif benn pro am nañu problème yu bëri bi njëkk mooy Sonko amul de bon communicant wala bu amee de bon communicant du leen déglu. maanaam ñi ko wër. ñi ko wër conseil wu ñu damay wax de amul de wala bu leen amee du leen déglu. parce que amna erreur yo xam dama koy dégg muy wax dama nan li ku am conseil waroko wax ben fofu dama na dafa dafa ngone deuxième bi mooy amul des des stratégies politiques gis nga tay bo amone ku melne ne Pa Laay Wade mu nekkoon ci ginnaw heure lu mu bëggoon mën na ko am mais son souci c'est que il a de l'immaturité té que day wax dara soga assumer loolu té des fois ben mot bu xase ba rëcc pour nga jàppaat ko dafa metti te nga wax ji hmm. wax bal la bu xassé ba dem pour nga jàppaat mais dafa ñoom dañoo ñëw ak si beneen système système bobu non cest dire ñeu ci benen système japp na il faut qu'on change le système waral ñu daal di indi benn euh, discours bo xamni tam ñom ñoom indi nañ ko allant dans ce sens donc est-ce que waruñu ko waru mëna comprendre que sen état d'esprit mo toll fofu wa Pastef. waaw xam nga xam nga fi nek ni il y a quelqu'un qui a changé le système sans le dire. kàlla. dëkk bi Niger. Niger Niger ki def coup d'état bi il était au niveau de la présidence de nga wax il n'a jamais dit que je vais changer le système gis nga bu ko waxoon laata lu mu tudd lii changer xam nga.

parce que hmm. pour nga xam ko il a permis à beaucoup d'acteurs politiques d'être au devant notamment le maire de Dakar qui ah, ah, m'a moo ko jël teg ko mais lan la ci mujjee fii nekk lan la Ça mooy euh, sawaay mënu euh, yow moom cest faut dire utiliser ah dañuy utiliser Sonko si li nga xam ne que di euh, politique waa c'est que mon, moi li ma wax il n'est pas fin politique c'est un acteur politique mais il n'est pas politicien hmm. le politicien il calculer buy wax ak buy toog ak buy dem ak mais Sonko moom du calculer il va avec le cœur cœur jullit bu set moom vraiment c'est un homme de cœur. Hmm. mais na xam ni il est entré dans la dans la mare au crocodile jasit ay jasit la nekkal bu fekké ne moom dafa bëgg nekk mboote dugg ci ay jasit mais dina jékki-jékki ana sama phare wala ana sama tank alors monsieur jassi wax nga ko que ni Sonko des fois xolam mooy togn si yenn yi euh, prestance am ak persistance am nak ko ci ban fànn de communication nga koy tek ci ban niveau. wa man Sonko damay wax rek ne mom liko dal ni da ko

non non il a été viré. non non pour man impayé domaine. non pour man foofu foofu dañ ko tooñ. ok foofu dañ ko togn. Euh, yenen dañ ko togn, dañ ko ba fi fi nek dañ ko euh, dañ ko togn. mais xam nga moy lan moy que il il ne s'entoure pas si vous voulez de gens yo xam ne dañu maturité lu muy def ñu ne ko sawaay bul def li, defal li, bul def li, defal li. man loolu rek la wax. Lo xam ne non seulement il doit s'entourer des ay mag ay communicants ay politiciens ba paré mo leen di déglou, mo leen di déglou. mais fi nek ni mom day def dara ci biir def dara bi. Hmm. mu mel ne wax ne maa tey di xool hmm. conséquences yi. Hmm. te boo defee erreur en politique je le dit et je vais répéter boo defee erreur les gens ne vont pas te rater dañ lay jàpp ne la nip fi nekk erreur bi mu def gars yi nañ ko nip fi nekk ni dinañ def dilatoire ba élection yi passé parce que moom fi nekk bu génnee premier tour num tour, tur mooy jël élection te gars yi du ñu seetaan ki nga xam moo leen dara daal dañoo taxaw. mais euh, mais monsieur faut faut foo teg ni Sonko moo war a génn premier tour si présidentiel atum 2024. waa ju baax xam nga Cheikh Anta Diop ba mu naan num mu tudd lay Wade dina jël nguur gi. Hmm. Cheikh bam koy wax teg kon ci xam-xam euh, batinde parce que ñi doon jappelé lay Wade ay xalé la won mais période bi nga xam lay Wade nu mu doon def élection dernière élection yoy mi muy hmm. xalé yoy yooyu plus de 18 ans kon donc am nañu carte d'identité léegi actuellement nak presque 60 à 75 de la population du Sénégal a moins de 25 ans. ok te ñëpp Sonko la wax au delà de ces militants ñi bari te amatuñu yaakaar lu gis nañ ne ñii fi ne amuñu ñoom yaakaar parce que defuñu lu kenn xam dóoruñu ñu mais Sonko xamuñu lu mu indi mais au moins nee na moom bu ñëwee lépp dina baax te parce que xaw na ko même sax jëmmal parce que moom fexe na ba ñu gëm ne ba mu nekk impôt domaine musul sàcc ay nit ñoo ngi koy wax te muy dëgg. Hmm. kon donc am nañ ci moom yaakaar. Hmm. kon donc moom moo moom moo am mooy porte d'espoir bi te leneen moom kese moo fii taxaw ci mbooloo du fay mbooloo fi fu mu oote fees ñeneen ñëpp politiciens yëpp da ngay fay ay kaar. fay 2000 fay 3000 pour 000 pour num nous mu Sonko kese moy oté te nit ñi fay sen xaalis diko ki bitim réew ak biir réew nit ñi ñoy fay sen num euh, di financer num mu tudd c'est le seul parti au Sénégal où les gens paient pour construire num la partie. xam nga l'ancien parti. donc refa changer le euh, le paradigme. Donc, on changer carrément va changer paradigme mais disons que le paradigme n'a pas forcément changé pour tout le monde ça a changé pour lui mais pour d'autres pas mais mom il a changé parce que nit ñi dañ am ci mom yaakar hmm. dañ am ci mom yaakar erreur comme bi likoy xaw moy communiquer na ba nit ñi doon wax wa wa ne na hmm. Sénégal wax la bo da ko def ko jëf waaw il faut que il faut d'excellents communicants alors je vous rappelle que euh, nous sommes avec qui euh, modi que euh, professeur alun badrassi le président du CREDA que encore une fois c'est chronique